li nga xamanteni def na ko ci yoon wi ñun ñëpp dañuy dégg xise yi waaye ba léegi maam Cheikh Ibrahima Fall ci mbir yu bëri yoo xamante ni umpale nañ ko di ñaan suñu borom kàttanal ñu seen xaadim incha allah ñu mën see dugg ak jàmm bisimilah rahmaani rahiim ay giseek alhamdulilahi rabil alamin sëñ xaadim ni ko waxee maam Cheikh Ibrahima Fall suñ ko waxee xel yëpp dem ci yoonu murid waaye xel yëpp dem ci Serigne Touba Xaadim Rasuul kan mooy maam Cheikh Ibrahima Fall jërëjëf sëñ Bada mu'tasiran li la xibrin di adab xabirin naxin wa arobin wa adab maa ngi doon gànt si jëpp foore ji yaru joo xam ne fu mu gis a baatam arab bi jub mbaa mu dëng fóore jooju xam ko maa ngi doon gànt ci moom li ñu jubloo wax mooy li ñu fas yéene soo bu xam-xam bu fi nekk waaye yéene la te ku ne xam na ni yéene yàgg naa dugal borom fu ne kon fan na fi fi jawaadi lil maydaan yi wal nastaan bi rabbina rahmaan yi mën na noo soppi suñu laa bi fas jëme ko ci lef yi talul loolu mooy jëm ci li ñu tax a jóg di ñaan nag suñu borom moom mi nga xam ne mooy borom tawfiq te tawfiixam jooju képp ku mu ko dëppalee sa mbir yépp jub ñu ñaan ko mu dëpp na tawfiixam jooju ba li ñuy soobu mat ak jàmm sëñ eh, sëñ Bada gis nga ki ni bëgg a waxtaane ku jafee waxtaane la ndax eh, ak dundam dafa bari lu ci aju waaye Cheikh Fall ma neex ni eh, bu fekkente ni jëm nañ ci ay waajuram waajuram bu góor mu ngi tudd sëñ Moustapha Roqee Fall waajuram bu jigéen mu ngi tudd soxna Seyna bu Njaay soxna Seyna bu Njaay nag ku ne xam na fi mu bokk mu bokk ci waa Njare ñu ay waa Kër Sëñ Daaru Asan Njaay Seera di mu ngi gën a jamono 1855 Seera Faal ak Aladji Malik ñoo maase ñoom euh, ñoom ay tofalam ci Seigne Touba manam Seigne bi magal leen at ndax 1855 1852 xam nga ñetti at la motax kon mom muy ngi jamono euh 1855 bokku nak ci fami bo xamni palé bi ngay dégg muy paale nu Kajoor ak Bawal yi nga xamni ne ñoom ay damel lan wara doon ak teeñ boo déggé palan googu moy damel ak teeñ yilif yi def Bawal ci paayan ngoom la bokkoon nga xam ne bu fekkonte ni moom toppoon na mbirum àdduna mën naa wax ne mën naa dem ba tey fu ñu limee laj joor lim fa keneen lim ko fa waaye nag kooku am na lu ko taxoon a jóg du loolu kon Seera Fall ci yax la bokkoon maanaam ñi nga xam ñoo doon falu fi ci Sénégal ci la bokkoon moom Seera Fall hmm. maam Cheikh Ibrahima Fall maanaam doonoon kon njaboot goo xam ne fi mu jógee doon ñoo xamante ni ñu waroon a ñu peegoon àdduna lañ ndaxte wàllu buur yi ni nga ko waxee si si waroon falu lañ waaye dafa mel ni si dafa dëmmooy loolu yëpp daal di euh, dëgmal yoonu suñu borom subhaanahu wa taala mhm. Mhm. waaw xam nga li waral loolu mooy li ne ci moom la mhm. ndax baatinu suñu boroom la bu doon dox ci kaw suuf su ko defee nag am nag fu ko suñu borom tegtal te faaw mu yegg fa moo tax fu ne mu jaar fa dem waaye fa ko tax a jóg ku ci nga ndox muy dawaan mu ngi wuti mu ngi wuti maanaam euh, xóot-xóot ba am ndox buy buy daw dawaan jóge ci kaw di wàcc bu demee ba ca xóot-xóot ba rek fa yam yem lam doon def lépp dafa mel ni ko jógoon fekk sëñ tubaa rek lay wër mhm. waaye ba mu demee ba gis ka rek teqalu ko ak moom mhm. ba foo tuddee sëñ tubaa tudd Seera Faal mhm. te kenn mën mënatula umpale Seera Faal ndax moo tax mënatula topp àdduna yonent bi saa sam dafa wax sax ni même ak ceddo soo ci soo ci nekkee soo ci jógee gëm ngëm gu dëgër ngay am loolu c'est yonent bi wax na ko kon misaalam a Faal misaaloo na loolu nga xam ni kon moom li doon def lépp sëñ Tuubaa rek la doon war xam naa loolu dinañ ci ñëw dinañ si ñëw incha allah ndax eh, doon na ko xëy ne kon euh, yàgg nay xencu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ba ni sunu borom boo matee ko si moom waaye laata ñu ñëw foofu sëñ Xaadim Cheikh Ibra fan la jaar laata mooy sëriñ xam nga moom daf daan eh, dafa jàng hmm. alxuraan man alxuraan jàng xam waaye suñ borom da ko <clears throat> moom dafa yëg ni am <clears throat> Ahmadou Bamba Mouhamadou Bamba Ahmadou Bamba mooy nekk sëriñam hmm. moo tax Eh, Moodu Bamba mu mës a dégg mm-hmm. dem na ca waaye ba mujjee dem mooy seriñ Serigne Taïba mm-hmm. Serigne ba mooy Ahmadou Bamba lañ ko tuddoon mu dëkkoon Taïba si la mm-hmm. ci moom la mujjee dem sëñ Xaadim kon dañuy taxaw foofu tuuti ñi naan Cheikh Ibra jàngul xëy na kon dañoo jàngul taarix bu baax Cheikh Ibra jàng na macha allah ba jàng xam-xam waaw xanaa xanaa loolu ñi xamul ñooy wax loolu waaye xam ngeen ni xam ngeen ni Seere Faal li mu noonu def làmbatu loolu ku kuy làmbatu du ko def ñaareel bi boo demee ci gës bi ci mbindu yu jëkk ya yam fa rek doy na di nga gis mu lay mu lay tojal maanaam euh, bismillah di la tojal maanaam julli bi muy wax ci allahu akbar sax am na mu ko doon toje noo xam ne loolu nit jàng na ba noppi soo fa demee day mel da ngay daal bind loolu ko xamul ko xamul la ñoo waaye kooku làmbatul woon waaye nag ak taalibe sëñ sëñ Ibra euh, sëñ euh, Bada day muur lépp ak taalibe lépp lay muuf ndax lu baax lépp dafa daje ci taalibe moo tax taalibe boo koy boo koy jox doxal mhm. daanaka yu ci bari mënees na ko bañ xam ci yow ma jox lay ay misaal mhm. nit ki boo amee alal njuga kabe danga naa ñëw ko suñu blaat gis ko mu takk ndigg li summi mbaxana mi summi dàll yi am na ku muy dajeel wala ku muy àndal du su ko karaam ñoom ña kii amula dépasse moom du jeexal dara ak kon gis nga taalibe gi nëbb na loolu mhm. nëbb na alal ji ak taalibe day nëbb maanaam xam bi da nga koy jëfandikoo ci biir taalibe gi mais doo ko wane woo moo tax njàngum kefe mu ànd ko taalibe bu taalibe gi ñëw rek da koy da nëbb nga xam ne moo tax murid yi bari xam-xam ba noppi te doo ko xamee ci moom lu muy ci ñoom lu muy ciy jëf ya bëgg yàlla nangul yàlla joxe ngir yàlla joxe ba noppi jooy ak yi demee noona Seere Faal nag loolu dafa newoon ci moom benn bi ci topp mooy da ngay yor sa da ngay ñëw sa sëriñ mu jàngal la nga dem ba mu yàgg nga jël doomam di ko jàngal nga jàngal sa doomi sëriñ ba mu ba mu ba mu am xam man alxuraan am xam-xam waaye bu la seet seetsee bu ñëwee yow mi ko jàngaloon dib sëriñam ci suuf ngay toog mu toog ci kaw kon yaay sëriñam ndax yaa ko jàngal waaye fi ne mooy sa sëriñ kon taalibe gee tax nga toog ci suuf moo tax kon ku naan Cheikh Rafal jàngul dangaa xamul mm-hmm. mu nga kon loolu moom leer na bu baax a baax ñi ko doon nattable ndaxte lu taxoon ma taxaw si tuuti sëñ Xadim am na si euh, ku ma doon mës a waxtaanal borom xam-xam bu mag la waaye nag xëy na bokkul si yoonu murit wala ràññeewuñ ko si euh, li ma wax def ni ma euh, musuma xam ne ndekete maam Cheikh Ibrahima Fall bind na téere ndaxte li ma daan dégg si nit ñi di wax rek mooy jàngul ak kon day baax loolu ñu leeral nii ndaxte tey leeral mbiri maam Cheikh Ibrahima Fall kéem luñ si dégg moo tax jóg kon sëñ Xaadim laataa mu yàgg sëñ Tuubaa ni nga ko waxee jaar na si ñu bëri ba si ki nga xamante moom nga wax sànq di Serigne tey hmm. waaw moom tax mu jaar ci moom moom ci la mujjee ndax euh, waajuram ak maamoom ñoo nekkoon Bamba ci Saalum jàngee ci sëñ Bamba Sall fiq ba yeggal sëñ Bamba boobu sax mag la moom yàlla dogal na musta am doom sëñ Bamba Sall amul doom daal hmm. léegi nag bi mu tàggoog bi ñuy tàggoo moom da leen waxoon ne ñaar am na ko ci am borom jamono mënumaa wax ki wala ki waye ñaar am na ko ci am waye su ngeen delo dom ja ngeen di jëk am na ngeen ko tuddé yonent bi goor lay doon ka tay top goor lay doonat na ngeen mako tuddé lo taxon mamoun maamun bi mu ñëwé kam jëk am ca non nim ko waxé muy Mamor Jaara mhm. mu tuddé ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam mhm. ndax Mamor Jaara 1848 la gëna jëm moom ak Cheikh Sadou Abi ñoo maafé mhm. Mamor Jaara ak Cheikh Sadou Abi ñoo maafé 1848 lan gën a jamono léegi Serigne eh, eh, Modou eh, Silla moomu am doom tudde ko Mouhamed muy Mouhamed Silla mu amaat doom mu tudde ko Ahmadou Bamba ma Mële mu ne Ahmadou Silla waaye nag dañ kaa ndàkkante Serigne Taïba ndax ñaare boo nekkee ci dëkk nekk kilifa ga di Serigne mën nañ laa ni Serigne tudd dëkk ba mhm. moo di Serigne Touba dégg nga wax ji bu baax waaw loolu moo indi loolu mhm. moo indi sëriñ tokki mhm. moo indi sëriñ nangam sëriñ nangam mhm. loolu tax ñu daan wax sëriñ Tayba waaye Mouhamadou Sall mële Ahmadou Bamba Sall nga ko tuddee kooku nag mooy ah, moom la ñuy Ahmadou Silla moom na ñu koy dàkkal nii sëñ Bamba Silla ndax ndax dañuy jël turu eh, sëñ Bamba Sall mële léegi nag sëriñ Bamba Silla moomee ca la Seere Fall moom xamoon na ni ku ne am Bamba Ahmadou Bamba mooy nekk sëriñam maanaam xamoon na ko si baatee yëgoon na ko léegi nag ca la dem nag ci sëñ Ahmadou Sylla moomee mhm. muy sëriñ Tayba mhm. nekk ak moom waaye nag ah, la tax mu jóge fa it dinañ si ñëw ci kanam ndax mhm. moom fu mu fu mu mës a dem it dina bu yàggee dina yëg ni du kii di ko doon tegtal ndax am na ay tegtal yu mu doon tegtaloo yoo xam ne dana xam ni su àggee ci moom kii lay doon am na it ay laaj yu mu yu mu dencoon ay laaj yu mu dencoon yoo xam ni ngir bu demee ca kooko am na loo xam bu kawanee rek dina ko laaj ba ma a xam ni kon kii la hmm. waaye nag laaj yooyu jotu koo laaj kenn ndax ku mu dem ci yow bu yàggeetul rek amul tegtal yi mu doon am ngir mën laa laaj yooyu amul hmm. moo loolu bu ñu ñëwee sëñ Tuubaa dina leer foofu hmm. <laughs> est-ce que <laughs> allah kon am na si ñum jot a jaar ñoo xamante ne ñëpp xam nañ ni kat macha allah ay boroomi xam-xam lañ ay boromi barkel lañ ay boromi batin lañ waye lepp rek ak ko lambatu su len say sayto moy li nga waxe kon mu doonoon Cheikh ibrahim ko xamanteni ni dafa feesoon dell ak baatin laataa sax muy gisanteeg Serigne Touba ay serigne xaalis. xam nga Bada. Mhm. Eh, Cheikh Rafal ku xol jëm ci. Mhm. xol Serigne Touba mbirum ni mu kawé ak ni mu ré mhm. té amul fenn foy laal Serigne Touba té do laal Cheikh Rafal lo rek tegtal na li ma wax. waaw damay Serigne Touba ni mu mel. ba noppi. lii nga xam ni moom la Sëñ Tuubaa bëggoon ñu mën a jariñu ci moom ak woyafam moom Seydou Fall mm-hmm. aku bëggam aku xamam aku taalibeem ñëw wane ko mm-hmm. waaw kile Sëñ Fallu daana wax naan moo tax bara naat bi rawut mm-hmm. naat xam nga naat waaw Seydou Fall da day Sëñ Tuubaa day maanaam Sëñ Fall day junj mu ne Seydou moo tax naat bi rawut day tekki nag kon kooku ka ñëw sulli loola Kok kay xam nga ni sëñ bi kooku borom baatin la. <laughs> wallaay kon kon kenn du ko naa kon kon kon sëñ Xadim dañuy ñëw euh, si si si gisam ak Serigne Touba. si ban période la ba kañ la gisanteeg Serigne Touba ak fan la gisanteeg Serigne Touba mom mam Cheikh. wa xam nga jamono yi nga xam ci leen wote mourid bo fekk ko fa. Hmm. ndax 1883 euh, ci miladia mu ak 1301 ci hijriya. Hmm. ci la Serigne Touba wooteeg mourid ca Mbàkke Kajoor mu tombeek bisub àjjuma ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor maanaam dafa mel ni bi eh, ñaar ñaar fukki guddi ak juróom-ñaar mooy leetu xadar ba set nag di ñaar fukk ak juróom-ñaar di àjjuma hmm. te àjjuma comme nii mu tëdd nii noonu la alxuraan ñëwee woon yant bi guddi ah, ah, maanaam ñaar fukk juróom-ñaar hmm. di guddi àjjuma ci la ci jibril ñëw ci moom ni ko iqra ci ëllëg sa di bisum ñaar fukk fan ak juróom-ñaar di àjjuma ci lal xaañ di yendu ci kaw suuf sëñ bi bi muy woote murid na loolu tombeel ci weeru koor ñaar fukk fan ak juróom-ñaar ci bisub àjjuma tombeek atum assasin mooy atum junne ñett téeméer ak benn ci gàddaay yonent mu tombeek 1883 mhm. léegi nag bi sëñ bi wootee histoire bu gudd la mhm. waaye dañ koy tënk rek ndax dañuy bañ mu jël waxtu bi mhm. boobu danoon jàngale moom sëñ Touba jàngale téeram naxwu am na ñu wax ni saadatu tullaab la saadatu tullaab téeram naxu la moo ko bindal boppam am ñu ni alfiyatu ibnu malikin la alfiyatu alfiya benn naar bu neex Muhammad ibnu Malik moo ko bind gànnaar a dëkkoon kooku sax am na xisab bu doy waar bu doxoon digganteem ak sëñ Tuubaa bi nga xam ne sëñ bi mu ngi jàngale nag téere boobu ajjuma joojee di ko jàngal benn taalibe ndax moo la gënoon ci wax ja mooy alfiya bëgg ci baat bu neex faayil faayil ci eh, naxwu foofu rek la dagane nga wax leen aji sàkk wali feneen fo waxe ni nangam mooy aji sàkk da ngay mbàkkaar ndax yalla ji rek mooy aji sàkk waaye nag dagan na bi señ bi agsee nak ci batu fa'ilun legi eh, manam tawaxe ji nek ci mom moy ko mu firi bat bi manam beggu ta wax leen aji sàkk loolu yàlla te it mënut a ñàkk bi moy li ngay wax way wa tollu way hmm. foofu la wax talib bi ni ko may dik da ka fay bayyi dem dugg ci ba abdir mu ñewat waxat ko bat bi talib bi wax bat bi señ bi ni ko may ma demat ci néeg ba ñi gennat ñew ni ko fa'ilun mu ni sëñ bi ni ko fa'ilun mu ni faayilun mu ni faayilun mu bi ni dënd ba mu ko may ma ta fofu waxtu wu taf ci sa ci mom mm. ndax ben dana haram, bañ ko jangal ba nopi te sëñ tuba mom woor na ko du firi baat du ko du ko du ko wax ndax ndax ndax du wax len aji sàkk loolu yalla te bam ko baye nak da dem dugg ci neeg ba nak fofu la ko yëndu sa sam fekk mm. ni ko rabbi ashabaka bil himmati wala turabbihim bi mm-hmm. yaral ñaan yow ci mbind ci ci bàyyi bàyyil mbind mi nga yareet yaraatee te yare yar leen ci ma muy yoonu tarbiya ndax bis ni tey li ma yoroon lépp jox naa la ko te boo yemee ci mbind nam ñu du jariñu ci ndax ñëpp du jàng mm-hmm. kon wo wooteel mi gën a yaatu muy muy yimma muy tarbiya te sëñ Tuubaa génn fekk mbooloo ñun trim mu ne alaaman saxibana li taallumi far yar taxil mm-hmm. wa man araada maa aradnaa fa leeser ma ana mm-hmm. képp ko àndoon ñun ngir njàngum kese mën ngaa dem seet sëriñ bi yem ci njàngale ku bëgg li ni bëgg na ñoo ñu and dox dox dem ci uh-huh. bisu ñaar fukki fan ak juroom ñaari uh-huh. ka jëkk jébbal mooy xëñ aadama gay ci mbooloo mi toogoon la bokkoon ñu fekkoon moo tax mu ne awalu man aamana bii wa bàyyi ali huwa aadama gay ki ma jëkk gëm jëkk jaayanteeg man mooy sëñ aadama gay bam ne wiis ku ci top sëñ ibrahima sar njaay bam ne wiis ku ci top sëñ masamba jóob saam uh-huh. ajjuma joojee ñetti taalibe laam dégg nga. ba sët di gaawu sëriñ daam Abdourahmane Lo sëñ bee ko ni woon. Mhm. sëñ bi nu mu mbàkk fekk ko fa woon daa kaajee woon. Mhm. kaajee mooy yelwaani ndax booba daara ji naan def bu ñu yelwaanee tey ba léegi ñu yelwaan. Mhm. bis boobu daa fekkoon daa bokkoon nag ci ñi demoon yelwaani woon moo tax fekkiwu ko ca gaawu ba sëñ daam Abdourahmane ñëw. sëñ xamal ko ni ko dafa mbir mu yees mu la fi wuutu sëñ laaj ko mbir mi ni mu demee mu nettali ko. fi yonent bi jaaram rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi qawlihi rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi saafahani la wax ne yonti moo tuñanteeg man tuñante boo ko déggee mooy kii wax daa toog nga toog muy wax ngay dégg waaw mu ne yonti moo tuñanteeg man ni ma bis ni ko tey bul yareeti ci mbind na nga yare ci mhm. himma mhm. léegi nag sëñ bi nett li ko ni mu demee yépp daal di ni sëñ daam ne kan a joxe boppam mun ko ñett mhm. mun ko kan ak ko Adama Gueye mun ko ak kan mun ko Ibrahima Sarr Ndiaye sëñ Tubaay wax de. Mhm. mun ko ko Masamba Diop Samb. sëñ sëñ daam nekkal mun ko foofu leen sëñ daam daal jéem lu mu nekk ñeenti mhm. taalib. Mhm. ba mu ne wiis ku ci topp sëñ Daaru Assane Ndiaye. am na ñuy ba mu ne wiis ku ci topp sëñ ba mu ne wiis ku ci topp sëñ Modou Jëmmooy. ba mu ne wiis ku ci topp sëñ Mbacke Bousso. sëñ Mor Ndiaye Tàggaar. ba ne wiis ku ci topp sëñ Mbacke Bousso. ba mu nuyee ku ci topp sëñ Modou Gueye eh, sëñ eh, Modou Faa Jama Ñang mm-hmm. mu mag ma mm-hmm. comme njëbbal gi nag mu ngi dox seere moom mu nga tey ba Ndakaar njëbbal mm-hmm. gii dox noonu gaa yi jébbalu di dox ba weeru kooru déwén wa ba ci déwén bi waaw xam nga weer nee naa weeru koor wi ñaar fukk juróom-ñaar ñetti fan a ciy def weer wi dee wala ñeenti fan léegi ci déwén sa nag ca weeru kooru déwén wa ci ñaar fukki fan ya ca la seere faal ñëw ñëw nag bi mu ñëwee comme moom eh, bi muy ñëw. jiitu muy ñëw tombé tombé 1302. 1300. 2 déet 1330 1303. 1300 1883. 1883 mooy. ci la sëñ woote 1884. 84 seer a ñëw. mu tombeeg assassin balsas basasin. Hmm. mooy 1302. ci hijriya ci hijriya. Mhm. léegi bi nga xamante ne nag léegi boobu suñu aadama moom dafa am liggéey bu mu doon def. Mhm. Bim mu jébbaloo moom ni mu naan def mooy warax la wutoon warax mooy mbaam di wër nag lu ma am rek bu dajalee ba mat ay hàddi rek mu ñëw mbàkk yoo indi ko sëñ tuuba yoonam yooyu nag mu doon wëree nag ci la yàlla dogal mu gisanteeg seere faal tey ba ndaxaar yoo xam nga fépp kajoor la bi ko seere muy ñëw léegi comme ñoom ñaar xamante nanu suñu ka magoon ci at ndax suñu wax nañ sax magoon sëñ bi ci at mm-hmm. ci ci ci saayir mm-hmm. léegi nag mu laaj ko ni ko suñ boo nee xamante nag loo si jublu xamante si zaahir wala xamante xamante yëpp rek mm-hmm. ndax xam nga eh, jamono bi suñ tubaa wootee mm-hmm. comme baatin rek di nga dem xam nga xanaa xam ne bada xanaa xamoon jamono yonent bi salaa salaam képp bi yonent bi wootee képp ku doon saaba rek borom baatin nga woon hmm? maa la wax loolu képp ku woon saaba rek borom baatin nga woon moo xam koo xam moo xam koo xamul moo xam koo dégg moo xam koo déggul waaye képp koon ab saaba rek borom baatin ko te jamono ñi am baatin danay xam ni day am ci loxo yi muy nekk loxo ba muy nekk nag ku ku xorxoral di nga ko gis mhm. subaa da ngay dem wuti ko mhm. léegi nag yàlla dogal euh, mu gis ko nag ci la ko doon laaj nag ni ko looy def fii mun ko man ab sëriñ laay wër mhm. xam nga yaa ngi doon wax sànq ci mbiru baatin mun ko ab sëriñ laa nu wër sëñ Adama ni ko ah dangaa amagul ak serigne mu ni ko dedet te fekk mom mu ngi ci mu ngi ci ab keur serigne waaw sëñ tayba ba mun ko lutax tax mun ko damay def kuma deg ba dem ci mom ma kay sut ci yalla allahu akbar Cheikh Ibra wax lolu sëñ Adama de sëñ Cheikh Ibra wax lolu sëñ Adama sëñ Adama ni ko ah koo sut ci matul ak serigne waye man japp na ni sama serigne bi ma am buma la yobbo ci moom dana la matub serigne hmm sëñ ni ka signalé ma teg ma faa yóbbu mu ni man kat warax wilaya damay wër di màjjaal suma démé ba am lima bëgg dana wañu ci mom laa jëm mu nga mbàkk jox bo mo mané nek fi suma démé wañu ko suma la fekk ñu dem mu ni ka ma ngi lay nek fofu def na fi gise ni jamana joju muy wër seigne touba ba mëna xam ki mat na serigne wala matulub serigne kon booba moom mat na sëriñ moom. wallaahi wallaahi sëkk sax. ndax ndax ki xam ak sëriñ wala xam ab sëriñ wala matub sëriñ moo mën a xam sëriñ bu matub sëriñ wala bu matub sëriñ. Mm-hmm. mooy mën a ñëw ci yow jox la boppam ba noppi xam sa tolluwaay ci yàlla. Mm-hmm. ndax ku xam ku mën a nekk ci ni mën a xam tolluwaayam ci yàlla ca ngay mën a ba xam yow mat na la. Mm-hmm. wala matu la. foofu nag suñu aadama dem. bi suñu aadama wëree ba am li mu bëgg wàññi ko di ñibbi lool ba muy wàññi ko nag daa tombeek maanaam mu tombeek bisub ajju bisub al euh, tal euh, dibeer dibeer mooy dimanche. Mhm. ah kon wërëm bi moom da daan jël ay fan. waaw daan wër waaw daan wër rek fu mu dem rek bu kii mu amee addi kon newaat ba xam nga comme ay saaku lay kii. su ma lu man ñetti saaku wala ñeent saaku sëf ko mbaam mi. wala lu mbaam mi attan rek. Mhm. su ko defee mën a wàññi ko waat te comme dëkk yi dafa xaw a tàqalu koo tuuti. noonu la daan def. Mhm. léegi nag ci sëñ Adama nag wàññi ko waat nag bi mu ñëwee nag jaar nag jaar nag foofa. ndekete mom séra lam tok lepp bam mu teq ba karok mi wàññi ko wat mom suñu aadama rek moko ko fi bàyyi fi mu ne na ba tok jek jek na léegi suñu aadama rek lay xaar mm-hmm. léegi mu euh mu seen suñu aadama ci àll ba nak mu war mbam mi di ñew mm-hmm. séra daal di genn dekk bi am dogalé ko ba mu ñew bu jup ko dafa sukk de ram suñu aadama daal tey mbam mi ndax loolu da ko jaaxal mm-hmm. bi mu raamee ba ci moom mu ni ka ah, yow kat dafa melni dang may xéñ xeet ak ki wër xam nga si eh, Bada. Mhm. li nit ñi dul xam mooy. Mhm. gis nga leeru yàlla day xeeñ nit. leeru yàlla. Mhm. day xeeñ nitu yàlla. fi ne nii nitu yàlla soo ñëwee ci moom boo dee borom leer rek boo koy jub te te gisagu la sax dana xam ni ah, borom leer a ngi ñëw. ni parfum di xeeñe nit. noonu la koy xeeñe noonu nag la bàkkaar mel. fi na bi ko def bàkkaar ba ñëw ci ba nit nit ñëw ci moom ni parfum di xeeñe nit noonu la koy xeeñ ni médd médd. noonu koy xeeñe. soo ñëwee rek day xam ni. day xam ne yow am nga bàkkaar ndax bàkkaar bi da kay xeeñ te gisagu sax ci misaal noonu la leer mel la nag mun ko eh, suñu aadama jóge gi mu jóge sëñ Tuubaa ak xol bi sëñ Tuubaa mi ci nekk la seere yëg loolu bo borom baat mooy def loolu mu daal di que yow dafa mel nag may xeeñ xet ak ki may wër te gisaguma ko jébbalu naa ci yow Cheikh Ibrahima jébbalu si sëriñ daal ni naa ci yow hmm. waaye kàddu la ko la la ko wax ni ko jébbul naa ci yow sëñ aadama daal dindi lenn ci li mu sëfoon uh-huh. jox ko moom la sëñ Musaa Ka wax ci keroog la sànni mbiram daal ca mooy uh-huh. mooy googu jébbal gi la ci jublu uh-huh. waaye dina leer ci kanam ñu ànd nag jëm si nag Mbàkke Kajoor bi nu ñëwee ba Mbàkke Kajoor sëñ aadama wàcc mbaam mi daal di koy yeew wàcc li mu sëfoon ni ko nig ma gis nga seeral ni muy li muy gi nga ba muy tàmbale ba fi may waxee yow mm-hmm. lu mu def lu ne ci xam-xam la ko teg xam <laughs> dégg nga mm-hmm. léegi mu daal di sëñ Adama la ñëw sëñ bi bi mu ñëwee sëñ bi laaj ko ni ak si nga mu ni ko waaw fi sëñ bi toog la dawal tam seen ku taxaw mun ko Adama keeku mu mm-hmm. mun ko Mbàkke kee sama taalibee waa sëñ Adama Gueye mooy wax xaaral ma ñëw fiya manam mu andi la addee ji andaale ko mhm. bi mu agsee ak feebra mu dem and ak mom jël addee ji man yëpp andi tek bi mu agsee tok señ bi ni ko ngani ki kum mu mun ko sama talibé mun ko ndax ëpp la allahu akbar bi mu ko waxé mun ko yow mi nga xamni kenn ëpp la gis nga mhm. nga lam ko waxon ni ko su ma la sama sëriñ dana la ma tok sëriñ mhm. dik na fofu mun ko yow mi nga xamni kenn ëpp la gis nga boole naa ko ak ma yor séra daal di jébbalu sëñ Tuubaa gis nga dama lay wax nag gis nga dama lay wax foofu ne gis nga même ak njébbalam jiitu muy ñëw sëñ bi ci ndigal la topp ba ba ni mu mm-hmm. kon kooku am na lu mu jàngale léegi mu daal di jébbalu nag sëñ Tuubaa mm-hmm. bi mu jébbaloo nag sëñ bi moom yëg na ni ki mu doon war a ngi nii mm-hmm. daal di nag wax nag sëñ bi nag xam na nag kon léegi nee na am na laaj yu mu doon waajal te ku mu mus dem la laaj yooyu bokkoon na ci ay tegtalam. joxagula jox waaw ko ndax dina am tegtal yoo ko jox. Mhm. ba mu war laa mën a laaj. Mhm. léegi nag bi mu ñëwee sëñ bi sëñ Tuubaa mhm. dégg nga léegi mu ko mu laaj kon nag ndax sañ naa laa laaj. laaj yooyu sëñ Xaadim balaa ngay dugg si laaj yooyu dañuy delluwaat tuuti ndaxte li nga wax sànq ni Cheikh Ibrahima li mu def yëpp si diggante bi ci xam-xam la ko teg waaye wane na ne foofu wane na wàllu fulla ni gis na ni kat euh, ku mu dem si yow su xoolee ni kat yow euh, maanaam euh, waxewuñ ko doon waaye matoo la gu matoo ko sëriñ yaakaar naan dala fay bàyyi dem seeti sa morom loolu fulak boppam ak am li mu bëgg si boppam wane na ko bu baax a baax waaye sëñ Xaadim dafa am nett yu bëri yoo xamante ni dañ naan Cheikh bi rek si yoon bi ba ba nga xamante ni mu ngi dem si sëriñ Touba maanaam gis na ab garab bu kawe mu yéeg si kaw garab gi daanu addee si ki mooy jëm ca gisaguma ko xaw ma daggate na fi jaan wax nañ si mbir yu bari yoo xamante ne xew na si yoon bi ba xam loolu xam nga Bada. Mm-hmm. dafa am loo xam ne ay xeetu doyadi yoo xam ne nitu yàlla du ko def. Mm-hmm. Seera Faal mënut a ànd ak Sëñ Adama Gueye mm-hmm. jëm Mbàkke Kajoor. yaa ngi dégg li ma wax baax. Sëñ Adama di ko bàyyi muy yéeg ci ay garab ak daanaka lu mu dugg ci loolu du ko def. xam nga loolu dafa loo xam nitu yàlla du def. moom la ka taxoon na jóg moom xam na ne fa dana fa yegg. nga fulla ji ba ba fu mu dem budul kooku mu nanga ko faa bàyyi kooku moom moom xam na ni kiim mu doon jëm mooy fa la jëm kooku dara du ko dog mm-hmm. dégg nga yoon baax xam yoo xam ni daanaka ndax gara eh, garab gi ñuy wax ni mooy dax eh, eh, maanaam daqaar bamba mm-hmm. ñu ni ci yoon wi la nekkoon ca la seera faal yéegoon daanu daqaar bamba nekkoon ci yoon yi daqaar bamba Mbàkke Kajoor la nekk <laughs> fa Sëñ Tuubaa ne fa la daqaar ga nekk boo demee daqaar bamba ak ngiis bamba la waaye ci ngiis ga la jébbalu woon mm-hmm. foofu ci Dakar Bamba foofu la soxna Faati Ja Mbàkke taal Sëñ Tuubaa gane jamono. Mm-hmm. kon loolu weddi na ko ndax dañu Dakar ga ci yoon wala ne woon am na suñu leeral ba ni ku fa musaan jaar da ngay jommi. Mm-hmm. séeréer jaar fa ñu wax ko mu daal di yëg ci garab gi daanu. Mm-hmm. ñu def naa ko àddee ka mu jëm te Dakar googu nekkoon ci yoon kon loolu taarix weddi na ko te biir biir dëkk ba la ne woon. boo demee foofa mu nga fa ba léegi boo demee Mbàkke Kajoor sëñ Xaadim kon loolu tënk na ko rek. wane ni am na si doyadi yoo xamante ni. nitu yàlla du ko def nitu yàlla du ko def nitu fulla. Mm-hmm. moom lu ko tax a jóg rek. te wane na ko mm-hmm. ci yoonam yëpp loolu ba dina dina dina dina dina dina dina gën a leer foofu. mu ngoog waaw sëñ Xaadim kon ba mu ñëwee bay eh, toog ak sëñ Tuubaa eh, yëg na ni kat ki ma doon seet yëg na ko si baatin ni kii kat ah budul moom de jege na ko lool si la nag indi laaj yi nga xamante ni moom nga waxoon moom la denc ngir ñi nga xamante ni su demee ba gis ni kii kat su ma yëgee ni moom la dinaa ko laaj bu fekkante ni laaj yooyu tontu na ko rek ma xamal ni kon waajaango yooyu yan laaj gis waaw xam nga euh, léegi euh, moom bi nga xamante ni ñëw na ba jëbblu ba noppi dañu sëriñ bi ndax sañ naa la laaj sëñ bi ni ko waaw ndax dafa bokk ci tasawuf mhm. mën naa ak rek mhm. mooy tasawuf ab taalibe sëñ ta laajab sëriñam mhm. lu muy ci charte ci charte waaw xam nga lu tax mhm. alxuraan ni mu diglee laaj noonu la ko aayee sharia dafa digla laaj bada nit bu xamul ni muy jàppe mhm. su ko laajul du ko xam nit bu xamul ni muy woore bu ko laajul du ko xam nit bu xamul ni muy ataka bu ko laajul du ko xam kooku mooy fas alu ahla dikri in kuntum laa taalamuun waaye ni mu ko diglee da ko da ko aaye am fu mu ko aaye ci xàqiqa fay ni tabaxte ni fala taf àll nii soo ma bu ma laaj alxuraan naka wax ndax nit ki mën naa am baatin te du am xam-xamum njàng te fu nit di yegg ci yàlla yegg na fa nga laaj ko dara loo xam ne ab bind kay atte jàngul loola su boobaa mën ngaa jàpp ni yeggul ci yàlla ndax kiy jëlee xam-xam suñu borom muy dikk dafa bokk koo xam day téemi téere jàng loolu la moo tax waxoon loolu nitu charia la ndax ab yonant dana wara roy roy do xam roy jëfam xudar di ah, nitu haqiqa mm-hmm. gis nga kon ni wutee motax mu xudar coon sarta bi ni ko bama topé buma laaj mm-hmm. fa in tabaatu ni falaatu fali ni an shay'in dara Hatta uhdisa lak Bama lumuy ma dem man la lii nangam nangam la rek gis nga ak murit fofu la rawel lepp mm-hmm. da ngay joxe sa bop top ndigal di xaar bu ñu leen nga ne nga ne aywa nangam. ba nga am ni nga bëgg. moo tax laaj yi faaw mu doon si charte. moom charte moo tax seer ni que ndax sañ naa mhm. laaj. sañ naa laa laaj sëñ bi ni ko waaw. seer ni ko ab taalibe bu toogee ko ab sëriñam nu muy toogee moom. Mhm. mu ni ko bu mu ko jigee lool ba bu ko sëriñ bi jox day banku. bu mu ko sori lool ba bu ko sëriñ bi jox day yóotu bu mu tàll ay tànk jëme ko. bu mu toog wéeru ci moom bu mu jàkkaroom ni ko màkk di ko xool ceeri ni ko ab taalibe bu ko sëriñam yónnee mu dem gisul lam ko yónn ndax sañ naa dikkaat sëñ Tuubaa ni ko déedéet hmm? mhm. ab taalibe bu ko sëriñam yónnee fekk andiwul lam ko yónni wartu dikkaat ci moom waaye ci sëñ Tuubaa da nga ne Ibra Faal mun ko mbàkk mun sëriñ matub sëriñ hmm. lu mu yónni taalibe dana ko gis ndax dana xam fa mu nekk mu yebal ko fa te loolu sëñ Tuubaa natt na ko ci benn bis hmm. genn guddi mu woo am lu mu ko yónni ci benn néeg te taaluñu làmp ba seere nekk ci néeg bi di làmbatu rek ba mu yàgg sëñ bi ni ko Ibra Faal mun nga màgg mun nga da nga koo gisulam xanaa foofu déedéet rek la moo foroon <laughs> waaye da ko ne Mbàkke léegi ma gis ko gis nga ndax xam na ni comme sëñ bi ko yónni faaw nag gis waaye ba mu gis ko rek ba muy dóor loxo ba ak ba muy dal ca loola benn la kon kon moo tax sëñ bind ko ab taalib bu ko sëriñam yónnee fekk gisul la mu koy war si dikkaat waaye la ci sëñ Tuubaa teg da nga ne ko Mbàkke mu ko sëriñ matub sëriñ lu mu yónni taalib bi dana ko gis ndax dana xam nekk mu yebal ko fa loolu yëpp mu ngi xew seen jotaay bu njëkk benn jotaay la ñu ngi toog ñoom ñaar hmm. séeréer ni ko man day ci ma doon seet su fekkoon gisuma ko waaye dox naa ba gisib xabroom hmm. su ma tiimee xabru sama passif yeggale ma ci yàlla loolu nag dañuy delluwaat ginnaaw hmm. ndax kon dina la wan ni la ba mu gisee sëñ aadama xam ni mu ngi buntu sëñ tubaa ci moom ne ko jox naa sama bopp kon koo xam ne bu fekkonte ni demoon na ba kim doon wër gisu ko gisub xabroom xabru ba dana ko doy mhm. kon bu gisee ku jóge ci moom mu doy ko loolu moo indi loola dégg nga ni ma delluwaatee ginnaaw bu baax a baax waaw seeran nekk nekk man ki ma doon wër ko mhm. waaye wóor na mas na maa gis ab xabroom su ma toogee ci xabru bi rek mhm. sama pëste yeggale ma ci yàlla sëñ bi ni ko yow de dafa mel sorewu na ay Pastef waaw wax nitu yàlla day mi teggin sëñ bi ni ko dafa dafa mel ne yow de sorewu na ay Pastef man da yonent bi ma doon xañtu bu fekkoon ne aw ma dara lu a tegtaloo moom hmm. waaye wóor na mës naa xool asamaan su ma téenee xool asamaan gis bi déw su ma sëggee sama Pastef yegg la ma ci yàlla seer rek ni ko lépp lu ma la defal ba léegi jataay bi la de hmm. jóoguñ fi mu toog hmm. seer defaal ni ko lépp lu ma la defal lu ma la liggéeyal sama kër yomal xiyaam rekk tax sëñ Tuubaa ne ko looy ni kawar gàddulu ma la ko fii ci àdduna sàkkatuma la ak mbaar. kon nangu na kon nangu na. waaw ko looy ni kawar gàddulu ma la ko fii ci àdduna sàkkatuma la ak mbaar. kon dina tekki ni ñoom topp wuñu woon dara sëñ Tuubaa lu muy yàlla. sëñ Tuubaa yi leen woon boppam yàlla rek leen wanoon. mu feer nag jóg nag xam ne nag kon léegi li ci des jaayante na ba noppi li ci des nag mooy futteeku dugg ci waar bi. ndax ku bëgg am lu kenn amul da ngay def lu kenn deful mhm. waaye fi gaay yépp yam boo fa yemee yaa gaay yam na dafa am loo xam ni eh, nit ki lim lay rawee ci yàlla wala mooy rawee ci leen ba mu koy def yaa ngi toog di ko xool mhm. mboo féeral noonu de amul dara mu nëbbatu mhm. daawul bàyyi ba guddi muy làqatu def dara lam noonu bëccëgu dara kàmm la ko doon def su waree taxani taxani su waree root root su waree buub buub su waree def nangam def ko ñëpp di ko gis bëccëgu dara kàmm la ko doon def waaye nag am na loo boo ko bëggee da ngay def loo fa ñëpp yam boo fa yemee doo dem mhm. da ngay def lu nu deful nga am lu nu amul mhm. kenn ku nekk ba mu la ba lu mu rayee moroomam rek ba mu koy def kookaa nga toog di ko xool mhm. dana dem du dem nangam nangam di ko topp ba far mu dem al muridu man laa yamliku shay'an wa laa yamliku shay'un takunu muridan su ma fii ka iraadun fa in lam turid shay'an fa anta muridun waaw suñu xarit ba mu ñëwee ñaata ñaata suñu mënee xam lim bi ñi nga xamante ni ñoom la fekk si kër Serigne Touba jamono jooju ñu jiitu ko si ta si taalibe booba fekk na fa ñaar fukk euh, euh, fanweer ak juróom-ñeent mm-hmm. fanweeri taalibe ak juróom-ñeent booba ñoo ñoo la ñooy ay murit mm-hmm. ñoom la fa fekk ñu jébbalu ne fa mm-hmm. ñëw mottali lim ba ñeent fukk foofu it dina am lu mu tekki dina am lu mu tekki ndax eh, ñi toppoon sëñ tuba ku la ci gën a nuroo ko saaba loolu garaat la ku si nekk si ñoom am na sahaaba boo dippi boo dippi seera nag biñ ko xoolee dafa dippi seyna omar ibnul xataab moom ci ci demenam lépp da ko copier sank si si si si sa njëlbeen wax am na loo junj loo xamante ne xel dem na foofu waaw ndax boo xoolee seyna omar bi muy ñëw si yonant bi sallallahu alayhi wa sallam ña eh, ñeent fukk eh, yu manqué benn la fekk muy fanweer ak juróom-ñeent mu ñëw mottali ko mu nekk ñeent fukk Cheikh Rafaal bi mu ñëw ci Serigne Touba fanweer ak juróom-ñeent la fa fekk mu ñëw mu ñëw mottali limba te seen naa woon ba mu ñëw ak dogu geeg waaw bi ñëwee bis boobu muy mu mu mottali limba seen naa ba mu ñëwee ci yonent bi lu bari moo ko fa dindi ñi daan sukk ak moom di lekk ñii di waxtaan ak moom seen kàddu gën a jóg ñii tàllal seen tànk lu ne mu mu ñëw ramasser nit bis ni ko tey na ndakk seera ba mu ñëwee defewu ko noonu sax moom defewul sax ni na ndakk nangam nangam da tegu rek tegu ca rek nekk ca ñu fekk si ko commoon teggin la dinañ ci ñëw ci jikkoom kon léegi Seydina Omar mhm. suñ ko xoolee ci Makka du woon ko kenn ñime bari na ay barab yu mu jaar te Seera Fall nee naa la bu ñu xoolee wax naa la ko am na noonu ba ko topp bañu ci àdduna mën naa nekk buur buur kay ci wàllu àdduna ci la lépp daje pour kon dëppoo naag moom léegi nag mu jébbalu nag nee nag ci waar wi Seydina Omar ba mu ñëwee fekk fa euh, euh, ni nga ko waxee doon ñeent fukkeel bi. waaye euh, doon ñoo xamante ni daanaka si si kàddu ñu gën a jege Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. loolu doon te ko tuddee faaw moom it ñu boole ko danoo wax ni yonent bi danoo wax ni yomal xiyaam mooy jëkk a texe. téere bu ñuy sax bu ñuy joxe téere yi mooy jëkk a jël nangu loxoom dajooram. te ku ku nangu sa loxoom dajooram yaay yaay ko texe. nee na mooy ki jëkk a nangu téere ci loxoom dajooram Seydina Omar maa la wax loolu Mhm, mhm. kon gis nga boobu garab dara gënu koo kawe kon mën naa mooy dëkk texe kon loolu wane na loolu waaw ñaareel bi Seydina Omar yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na seytaan da koo ragal iblis nee na dafa ragal Seydina Omar mhm. nee na mbedd mu dugg iblis du fa jaar hmm? gaa yaa ngi nii ku bëgg ñu wér la àndal ko Baye Fall léegi. xam nga mbir yi mbir yi buñ ko benn benn rek day daal leer ci ñun. bu baax a baax bu ah. baax a baax bu baax a baax sëñ Xaadim jébbalu na jamono jooju. waaw noppi rek nga ne mu daal di jubali si waar yi. te ñëpp dañ léeg-léeg dañuy dégg yéen borom xam-xam yi ngeen naan Serigne Touba kat euh, këram moom ñii la leen daan ñii da leen daan tombal ñii mu yóbbu leen si daara ñii mu takkal leen laxasaay kon moom euh, Cheikh Ibrahima dafa ñëw rek ñu takkal ko laxasaay maam naka la nekkee woon kër Serigne Touba. waaw xam nga ni mu nekk woon maanaam ak tërbiye ñi ñi jaar ci tërbiye xam nañ li may bëgg ah. wax diggante diggantelee xañ na sax tëddeeg léegi moom yi bari sopp na ci waaye yu jëkk ya nga xam ne moom mhm. ndax yu ci bari amul woon ndax daara ja ngeen ne ci àll ba lay nekk du am courant du am téléphone du am ndox du am lii du laa yu si bari yaa koy dem di ko wuti da ngay dem rooti di jëggaani yi ñëw mhm. dem taxani andi ñëw di buub kër gi di def yooyu la yooyu mooy liggéey ya fa amoon diggante root mhm. diggante la taxan diggante la buub taxan mooy dem àll boobu dem àll wuti mat andi ak yeneen yo ak yu mel noonu ndax sëñ tuba danaan ajoo mat ndax moom lépp daan taalu guddi di bind mbaa muy jàng seera ñëw nag di dàkk sëñ bi nag bëggu sëñ bi mu koy dàkk di ñëw di buub kër gi yëf yi set dégg bu soxlaa mat fekk mat nekk fa sëñ tuba lépp suuf la daan toog seera daawul nangu mu toog mu toog fu taq mu ñëw buub moo tax lépp yére yi ñu daan sol dinañ ci ñëw mooy sëñ tuwaa la daan dàkk waaw sëñ tuwaa la daan dàkk xam nga xam nga xam nga def lu baax baax na waaye ka nga koy defal nga xam nga xam nii la bëggee nga defal kanam loolu moo gën a gaaw ci am ngërëmul yàlla mooy Cheikh Ibrahima fa peegoon li sëriñ bi waaw waaw da daan dàkk sëñ bi waaw mhm. ñaare lu mu musaan indi day tombeek mu nekk bëgg bëggu sëñ bi te loolu nag moo gën a gaaw ci defaraat defar ñu defar la mhm. sëñ bi mën naa toog képp yaa ngi dégg lu ma wax baax mhm. soxla taalu matt amu fi ngay fekk yow andi nga matt wala benn bis mu soxla ndékkeeb laax fekk yow andi nga dugub ba defar laax bi defar xëy suba teel jox ko xam yooyu ñoo gën a gaaw ci defaraate te ñiy tërbiyee sëriñ yi tërbiyee xam ne lii ma wax léegi nag e, mu necca loola ci mbàkk waaye loolu nag mbàkk kajoor la ko tàmbalee mbàkk kajoor dama gunu mbàkke bool mhm. ñu ngi mbàkk léegi ñu nekk fa nag ci noonu mhm. Mhm. sëñ nekk fa ci noonu ba euh, euh, maanaam ñëw Cheikh Ibra fekk na mbiri Touba feeñ wala fekk mbiri Touba feeñagul ndaxte léeg-léeg ñu tuddee Touba gor ga faaw ñu wax si Cheikh Ibra loolu kañ waaw waaw loolu ñëwagul hmm. ndax jamono yi nga xamante ni ci la nekk Mbàkke Kajoor da sëñ bi dafaa mujj jóge hmm. ndax booba coow bi xaw naa bari xam nga njëbal gi booba taalib yi bari te bari xamuñu woon yu mel noonu hmm. wax ne ne am na bis sax boo xam ne bi fa sëñ bi tàggoo dafa ñëw ci jàkk ji keroog moog seera ñoo ant waxtu suba bi sëriñ bi jullee ba yeggal daal di génn wax mag ñi ne dama bëggoon am lu ma xool ci penk dama leen soxla ñu bari toog ak moom mu leen dafa am lu may séntu ci penk bi ma bëgg ngeen sentu li ma ko ban toogee ab diir ci la jant bi fenk sëriñ bi ni liru mu doon ñun ko ab jant mu leen bu demee ba tollu suñu dugg bopp nun koy woowee ñun ko boobaa boobaa ñun digg bëccëg jot na seigne touba ni tak ndeer la jëm jaangi ni di wax ak yeen lima bëgg su ngeen bëggee dem su ngeen bañee dem ni Ibra Faal mun ko mbakk mu ko jogon dem wax na ni yagul dara ci la sëñ tubaa yoqi bakka jor ñu mbakk bo diggante jitt touba bi touba bi diko japp fu seigne touba musa dem fu nek coow tax mu toxoo barap sangam dem barap sangam fu mu musa joge fu nekit coow tax mu joge fofu dem barap sangam loolu dañ ci wara bayyi xel ndax booba gaay nit ñi ñu jëbël ah ak ak ñu ko gëmé won ak ñu ko toppe woon ñu ko déggale woon te xam nga daanaka sëriñu bu fekkee na ngay jàngale da ngay def ku mel ni ñëw mbooloo mépp mag wuti ko ah mën naa bañ a neex ñëpp de loolu nag moo indi woon coow ya ba noppi Cheikh Ibra Fall ci melokaan woo xam ne kenn xamul lu mu doon mhm. ndax moom la ko gënoon naqari sax mooy la naan sàllaloo sëñ bi di jaar ci tur Modou Mbacke Ahmadou Mbacke kon kon kon kon kon sëñ Xaadim liggéeyal Cheikh Ibrahima si biir euh, kër sëñ rek si maanaam buub ak taxañ ak root ak yeneen yi ni waaw na sax si euh, xaw ma koy waxee si wolof tarbiya wala yar ñi nga xam ne ñoo nekk loolu waaw loolu ñu ngi ci ñëw ñëwagul sax ci kanam lay ñëw loolu ak mhm. seegun ci mhm. ndax loolu euh, étape par étape la mhm. ci bi la bokkal waxtu njalbin gi mu ngi nekk ci dem fexe majjal ñëw andi lu am ñu dem taxani ñëw andi ñu ñu togg togg bu nuy jaaru jaar bu sëñ bi bind bind mhm. buub kër gi buub yëf yi mu set dem rooti indi ci yooyu boobu foofu lañ tolloogun mhm. léegi nag ba fa sëñ bi jógee nag la ñëw Mbàkke bool Mbàkke Bawol sëñ bi am na fa ñaari at foofu la taalife Masaalikul Jinaan waaye lépp ñooy ànd ñu Mbàkke Kajoor ñu Mbàkke Bawol mhm. foofu nag am na yu bari yu fa xew sax waaye xam nga am histoire moom na ñoom bu xasee ba jàll mhm. du jar di répété waat yenn yi ndax day am lu muy waaye am na ay yu bari yu fa xewoon mhm. te loolu ku xam taarixu sëñ bi ci loolu di nga ko xam waaye lépp seera te bari na ci loo xam sax seera taxoon ñu loola daan am ñu mhm. meloon ak yooya moom naka jekk daa mus a gëm sëñ Tuubaa naka jekk dafa mus a wóolu sëñ Tuubaa naka jekk jekk lu mu mus a yëngatu sëñ Tuubaa rek la ñoom moom bu ko daanaka kon mun nañu wax ni ba mu ba mu ñëwee ci wet sëñ Touba ba léegi gisatul leneen gisatul keneen dég déggul keneen gisul keneen hmm. yëgul keneen sëñ Touba rek la yëg hmm. mu nee na ca loola te muy dëgg mooy li nga naan moom rek la daan dàkk waaw moom rek la daan dàkk hmm. mu ne ca loola ku mel nii nag boo ko boo ko boo ko dalatul njukkal da ngaa war a ci mbiram léegi nag moom mu ne ca loola ci ñaari at yi nag ci biir ñaari at yi suñu xadim foofu dama bëggoon ma laaj la ba tuuti mooy kon lim ko dàkkoon rek def ko ni est-ce que de eh, eh, ñenn ñi moo xam euh, euh, ñi Sëñ Tuubaa jamonoon teloon dañ naan ay borom xam-xam lañ est-ce que fooguñu ne woon kon dañoo jàpp ni Sëñ Tuubaa Cheikh Ibrahima dafa teg Sëriñ Tuubaa xëy na maa ngi jégalu si wax ji euh, fu mu àggul wala maanaam daf ko daf leen di xatal seen digganteeg Sëriñ Tuubaa wala ni mu demee ndaxte dañu ne loolu lu bees la woon ci ñoom maanaam ñi mu bokkaloon Sëñ Tuubaa moom hmm. dun ji yoo ndax ñoo bokk ay bëgg ñoo bokk fu ñu jëm waaye mag ñi fi ñu wuut ak ñoom kenn ko ne nangaloon la nangaloon na moromam mbiram hmm. ndax am na lu Cheikh Fall doon def moom leer na leen ñoom lii ñu ngi ko gisee ci moom mhm. ñu koy ci roy sëñ seeran nee na li ma doon def ci yoonu murit sëñ Mandumbe Mbàkke moomu ci jëkk a roy sëñ Mandumbe Mbàkke rakk sëñ Tuubaa la di waaju sëñ Mudu Xabaan kon ñoom nangol nangoloon nan ko xam nga daje ci jële daje itu yàlla di soxla dara di juyee ko xuloo du tax ngeen am li ngeen bëgg te seera ku ne kuy masla ku ne moo dàqoon masla te bu ñëwee ci jikkoom dina ci leer mhm. Mhm. léegi nag ci ñaar at yooyu xëy na nag nit mën naa yu bari mën naa ñan fekki wala ñan fekk fi wala ñoo xam ne ñu bees lañu wala yeneen mhm. juyam mënta ñàkk ci ay ñu dëkk mhm. wala ñu ñu nekk ci dara loolu du dara ndax juyoo xalaat ak juyoo ki mhm. taxut a bañante taxut a kii ñu nekk ca loola ba yàlla dogal euh, ci Mbàkke Bawal Sëñ Tuubaa daal di jóge fa sañ ci Mbàkk euh, Daaru Salaam hmm. waaw bismillah waaw bu sañee Daaru Salaam la nekk ba léegi tërbiya gi ma gi ma doon wax gi nga doon wax ak seegul ñu nekk nag daaru salaam daaru salaam googu eh, bi ñu ko sañcalee sëñ bi léegi féete fa sëñ tubaa nekk ñoom waaye yenn saa mu génn bàyyi leen dugg ci àll bi di wër daaru salaam googu fa la sëñ Mourou Moustapha gane jamono daaru salaam googu ci la Cheikh Mouhamadou Fadil Mbacke gane jamono mm-hmm. daaru salaam bu ñu xooloo ci tënk bi fi sëñ bi nekk am na fu lu man ñetti at waaye nag ci biir ñetti at yi nag maanaam ci la ñu sanc nag Touba. Mm-hmm. waaye comme njaboot gaa ngi fii muy dem ak dikk ci eh, maanaam doxalin yenn saa yi mu génn dem biir tu biir àll bi yenn saa yi mu ñëwaat yu deme noonu waaye teewul moom ñoom la nekkoon ñu nga ca. Mm-hmm. ne ca loola ne ca loola ba sëñ Touba yàlla dogal mu sanc Touba. Mm-hmm. waaye bi muy sañtee Touba nag ci la leen toxale nag ñoom booba. dafa ànd ak fukki taalibe ak juróom mbenn ñu yógee Daaru Salaam jëm Touba jiitu loolu dafa woo maam Cheikh Anta mu ñëw mun ko bi ma ñëwee Mbàkke Bawol ba bi ma ñëwee eh, Daaru Salaam li fi jot a jébbulu ñi fi jot a nekk ay takk der dama dajal leen ma leen ci genn kees maam Cheikh Anta dajal leen ñëw wax sëñ bi sëñ bi ni ko ñaata la mu ni ko ah, jàpp ma lim bi mun ko demal nga wàññi leen mu wàññi ko mu nekk téeméeri taalibe yu manqué benn maanaam juróom eh, ñeent fukk ak juróom-ñeent sëñ bi ni ko boo ci bokkee ñaata lay doon mun ko téeméer mun ko bis ni ko tey juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yëpp ak dëkk bi rafaatal naa la ko moo tax ñu ne loo tax maam seant jëkk seex te ñeent kàngam yu mag yooyu ma la waxoon diggante la Cheikh Ibra Fall sëriñ Massamba Diouf Sam sëñ Ibrahima Sarr Njaañ sëñ Daam Rahman Lo ñoom boobu ñu ngi fi waaye ñi ko sëñ bi wax mooy ña nga xam ne ñam ko dajaloon du ñu jébbaloo Mbàkke Kajoor mm-hmm. lim boobu ñooñu kenn bokku ca bi mu jógee Mbàkke Kajoor ba ñëw Mbàkke Bawol wax mm-hmm. ña jotoon jébbalu foofa ba ni mu ñëwee Daaru Salaam lim boobu la ko wax na ko dajale diggante Mbàkke Bawol ba Daaru Salaam waaye ñett ñi nga xam ne ñoo nekkoon ñoo jébbaloon Mbàkke Kajoor ñooñu bokkunu ca mm-hmm. léegi nag mu daal di euh, jël nag fukki taalibeeg juróom benn boobu wax na ne maam Cheikh daf ko teg juróom-ñaari am sëñ jox ko ak dëkk bi ndax moom mu ngi fas yéene dem Touba. léegi nag mu woo Seera Fall. Serigne Ndaam Rahman Lo Serigne Massamba Diop Sam Serigne Ibrahima Sall Ndiaye xam nga ñeent ngoog. ñeent ñooñu kenn ku nekk mu boole laa ñetti ndongo damaa defe ne eh, boo eh, boo ko boole lim ba yëpp. fukk ak juróom-benn la. ñooñu la sëñ Touba àndal nag dem Touba ak xanaa waa kër gi ku mel ni soxna eh, Amina Aminatu Lo soxna Awa Bousso ak soxna Fatou Diop waajur maam maam Thierno waaye ñii ndongo yi moom ñi mala la wax ñii la àndal yóbbu leen Touba booba këram gi mooy fii jumaay ji nekk foofu la dëkkoon foofu la dëkkoon ndax mooy kër gi mu njëkkam ci Touba léegi nag bi nga xamante ne nag léegi nag nekk na fa léegi nag foofu la jëkk a sosee daara tarbiya jii ngay wax yow mhm. sëñ Tuubaa daal sos ñeenti daara benn daara bi féete penku mu jox ko sëriñ Daam Rahmaan ak ñetti ndongo mhm. benn daara féete sawu jox ko ak ñetti ndongo mhm. wax na ñetti ndongo yi ko joxoon sëñ Saliou ci la bokkoon benn mu jox ko sëñ Ibrahima Sarr benn bi bëj gànnaar mu jox ko sëñ Masamba Diouf Samb mu nekk ñeent daara yu yu wër eh, Touba comme Touba ji mooy eh, kër gi. Mhm. ñeent daara yépp nag daal di féete sëñ bi benn bu ne daara féete fa. daara ñooñu nag mu nekk si digg mu ne ci digg ñooñu nag ñoo doon tërbiyee. Mhm. foofu la Cheikh Rafal tàmbale nag di tërbiyee moom. Mhm. waa di yare. ndax léegi daara ju ci nekk ñeent yu ñu mën a wax kenn ku ci ne moo doon jëwriñ ja te jëwriñ ci daara mooy digale di tere di def lii di def laa. waaye li jiitu loolu nag booba. tërbiya gi ñu wax amugul woon gi may wax nii boobu amugul woon boobu dañ naan def su war a def dara ñu ne ay wax ñu seet kenn rek mu jiit rek ñu ne ca mhm. booba noonu laan doxale mhm. waaye bi sëñ bi joxee nag ndigal lii mhm. daara yi nag tàmbali nag kon kon ber gi leen ber noonu mooy jamonoy seex bi wala jë boo seexagunu ñu ngi ci liggéey ba léegi mm, dëgg la ba nekkee nag ca loolu ab diir ah, ka jëkk gane jamono ci doomi sëñ Tuubaa yi Tuubaa mooy sëñ Baara Mbàkke waa ji sëñ Sidi Muxtaar mi yàlla na fi yàgg te wér ginnaaw bi te ca toppaat mooy soxna Mariama Kunta mhm. di rakk sëñ Fàllu moom ak sëñ Fàllu ñoo bokk ñaari waajur moo tax ñeen ñenn ñuy juwaale taarix bi di wax ni eh, sëñ Baara dafa nàmpandoog sëñ Fàllu danoo juum mhm. sëriñ Moodu Moustapha fukki mi nga xam ne mooy magi sëñ Baara ngam sëñ Baara topp ci moom mhm. sëñ Moodu Moustapha juróom benn weer ak fan yu new fukki fan ak juróom benn fukki fan ak juróom ñaar la mage sëñ ñoom ñaar ay doomi day maanaam ay doomi bàyyi lañu mhm. kii dafa gane jamono tam euh, euh, ñuy wax muharam muy tam xarit kee gane jamono rajab mhm. juróom weer la benn weer kon ñoom ñaar ñoo maase mhm. bu dee nàmp ñoo ko defandoo léegi nag seen ñaar rakk nag ñoo nàmpandoo ñoo nàmpandoo seen ñaar rakk ñoom ñaar ndax euh, soxna Maree moom moo topp sëñ Fàllu sëriñ Baara moo topp sëñ Mourou Moustapha ñoom ñaar ñooñu nag lañ la gaa yi juwatle sëñ Baara ak soxna Mariama Kunta kon ñoo nàmpandoo waaw sëñ Baara ñetti weer la ko magee mhm. fii jumaa ji nekk fi leen gënee jamono moo tax man la ki jëkk gënee jamono ci doomi sëñ Tuubaa yi Tuubaa mooy sañ Baara mhm. ki ci toppaat mooy soxna Mariama mhm. soo gisee nag ñaare bu ñuy wax taarix dañ naan sëñ Baara rek moo gën a jamono Tuubaa li koy waral mooy ñaare murid dafa am teggin bu taarix dikkee rek góor ak jigéen daje saa nag bu ñu tuddee góor gi rek yóbbaale na ko waaw mooy lu mel tey bu ne sëñ Mourou Moustapha mooy taaw sëñ Tuubaa te xam nga ni eh, ki nga xam ne mooy soxna Faati Ja moo ko mag waaye suñ mënu saani mooy taal suñ Tuubaa kooku xam nga euh, teggin yàq yoon yooyu demee noonu ndax soxna Faati 1878 la gën a jamono na juróomi at yoonu murid door sosu hmm? sëñ Manoune Moussa ginnaaw yoonu murid la gën a jamono xam kon loolu sore nanu léegi nag daanaka magee nekk lu ma juróom-ñetti at booy set soxna Faati waaw ndax boo xoolee 1878 ak ak 66 juróom-ñetti at la hmm? waaw léegi nag eh, bi nga xamee sëñ baara nag gane na jamono sëñ Mouhamadou Lamine baara bi mu ganee jamono nag ci la Sëriñ Tuubaa wool nag ñeenti jëwriñ yooyee Cheikh Rafal Fall Massamba Diop Sam sëñ Ibrahima Sarr Ndiaye sëriñ Daaru Rahman Lo ñu ñëw fekk na booba daara yooya daara ju ci nekk am na fanweer ndongo daara ju ci nekk nag ñoom ñeent ñu bi mu leen wooyee ñu nekk ñeent jëwriñ ja ka toppoon ci ñoom moo jiite daara ja hmm. wax nañ jamono yooyu daara eh, daara ju ci ne daal ki topp moo ko jiite hmm. ki toppoon si ki Serigne Touba sañ waaw waaw mooy ñeent ñu ma la wax hmm. léegi nag ci leen sëñ bi woon leen nag bis ni ko tey am ngeen yàlla am ngeen yonent bi am ngeen sama ngërëm na ma ku wax ak bëggam ñoo hmm. ku nekk wax li mu bëgg keroog lan feex li ñuy wax ceex hmm. nii la ko sëñ Tuubaa doxal kon kon kon sëñ Xaadim euh, du du du du diir bu yàgg boo xamante ni euh, euh, Cheikh Ibrahima liggéey na ko waaw diir ñetti at rek hmm. si biir ñetti at yi rek xam nga bu ñuy wax ñaare da ngay gis bu ñuy génnee ta taarix li tax yenn saa ngi tey ñu ni 1880 nangam wala nangam nga xam ne ñu ni ñu ni ñu ni 1800 nangam nga xool ko ñu ni loolu boo xool ëpp na fekk na xëy dat date bii ñuy wax ci at mi booba at ma la ca des bariwul ci misaal xam nga tey loo xam day dafa am mois décembre ah ay premier décembre wala ay 24 décembre wala nangam décembre te bu fekkee tay tey ñu ngi ci 2000 2002 décembre bi ci 2002 la mais tey boo nee 2002 la da ngay jàpp ni léegi ay weer yu bari la te daanaka boo ci tegaatee ay bis wala ñàngam rek nga dugg ci 2003 mhm. kon su waa léegi ci dat yi nii sooy xol 1800 nangam man nga xol at ya bari te fekk na lepp boo koy xool ñett at lay doon hmm. ndax man na nek lo xam ci at at mi tudd at moom daanaka man nga ko bañe limana ndax weer ya day fekk weer yu bari dem ndax lu am décembre 2000 2012 hmm. fi ne ni tay fi ne tay manam li wax ni bu fekkon na ci mois de octobre la amee woon hmm. octobre novembre décembre mu jeex kon du mat at dëng lu ma wax ba nga xam ne daanaka 2003 bi daanaka moy nek at mi buy jeex lay nek at mi waaye 2002 mom man nga ko bañe tuddu mais di nga ko tuddu ci lim fekk na danaka bo dee xol wer ya danaka du mat loola loolu moo tax nag dat yi ni ni waxe dat yi loolu loolu loolu mooy loolu mooy sofaan bi mm-hmm. luñ ci si won bokku na ci euh, li nit ñi foog ni euh, manam Cheikh Ibrahima Europe li mu nekk ci Serigne Touba euh, waaw loolu dinañ ci ñew xam nga legi moom bu seex gi amé rek dañ xam ñen xam ni mu tegale woon ay bagaasam ak ak nu mu def <laughs> ak ça ndax ndax te kon sëñ daa dajal ne ni leen bis ni tey am ngeen ngërëmul yalla ku nekk wax ma lo am ngeen ngërëmul yonent bi am ngeen sama ngërëm mm-hmm. nama ku nekk wax ak bëggam waaye da du ko tegale ka ca magoon mooy suñu Ibrahima sar Jaañ mu ni ko Mbàkke day sama bëgg na dëppook sa bëgg sama bañ na dëppook sa bañ sëñ bi ni ko su ma déggee wax ja kon la mooy sa bëgg na dëppook bëgguk suñu borom sag bañ na dëppook bañuk suñu borom ndax man bëgguma lu yàlla bëggul bëgguma bañuma lu lu yàlla bañu mhm. moo tax li ma lay wax ne néewaana nga gis kuy defoon ndëngte nga laaj ko xool ko mu bokk ci waa sëñ Ibrahima Sarr Ndiaye ci looloo ko topp waaw mu ni wiis mhm. sëñ mo euh, Massamba Diouf Sam moo ci topp ndax danoo magante woon sëñ Tuubaa mbër la de ku nekk wax ma loo bëgg waaw te li nga wax ni moom nga bëgg moom dala koy lay doon joni joni kooku ku dëppoo ak yàlla rek kam te it nan bàyyi xel lii boobu demagul ci géej gi bi def li jaloro yep mu ngay def defar gay yi ñuy ñuy defarate defaraate bu sëñ tubaa xamagul tubaab bi sax xamagu legi mhm. mhm. mhm. léegi ma sam ju Sam ni ko mané mbacké suma togué yow duma tanal sama bop waye lepp lo may defal na nga defar sama bop bam mu ko nga door nga door ma ko defal motax ñu ni woon daka ni ma defal ak nité moom njëwén yi bokk moom moom njëwén bu bokk ci waa Kër Sëñ Masamba Jóob Samb képp maanaam doo ko gis mu mel yeneen njëwén yi. ndax yeneen njëwén yi moom xam nga eh, moom la xam doy na waaye ñoom ñoom ñoo gën a muus am njaayeen. Mm. gis nga Pape Sarr gis nga Pape Sarr mi ne fi gis ñoom la bokk gis nga ni mel. ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. nag sëñ bi moom sëñ Tuubaa neewaat na ko moom yomal xiyaam àjjana. Mm-hmm. di nga fa am ak mbooy. sëñ Masamba Jóob Samb ndax moom daa yàgg sëñ Tuubaa lool sëñ ma sambas Jóob sàmm ni wiis mu ni sëriñ daam Abdourahmane mhm. wax ma sa bëgg mune ko képp ku bok sama askan ndey mbaa mu sama askanu bay bu faato bu dem sawar nga dem aljana eh. tek ci ne ko képp ku sukku jébblu bu sëntul mbacke mba buso da ko war maale mhm. nah, sëñ bi ndax limi bëgg wax képp ku sukku jébblu bu sëntul mbacke mba buso bu nare dem sawar ëlëk nan top sama jëm bam fess ñu tabal ma sawara ma tabbi sawara kenn dutu xajj sawara ma liggéeyal ko sëñ tubaa ni ko lu jëkkali ak ñaan la koko am na ba noppi ndax da nga ni ku bokk sa askanu day wala sa askanu bay bu hmm. faato nga dem aljana koko mom am na ba noppi ndax ñaan la waaye lu mujj ak dogu la hmm. ndax da nga ni képp ku sukk jébbulu ba sant mbàkke mbaa buso bu naree dem sawar gis nga li ma la wax ne ak warmaal la mooy moom sóoraale wu ko sant Mbàkke ku sant bu sa xaatu leen tudd sax di tudd sawar ndax ni moo tax gis nga ñoom fan mm-hmm. mun ka boobaa nag bu ku ci dem sawara nan ma def soppi sama jëm ma fees sawara kon ak dogu la mm-hmm. kon bisub tey bii ba koroog ngay faatu bis bu nekk na nga naafilab kaamil ci ñaar rakk guddi gu jot oh. rakk eh, kaamil yooyee soo demee fii ci ndaam boo demee fa jàkk jam defoon ci biir néeg ba ba léegi jàkk su ndaw sa ba léegi mu nga fa fa la daan naafila bis boobu la ko tàmbali ba ni mu faatoo sëñ Jaam Abdu Rahmaan la waaw te kaamil yooyu wax na ni naafila googu def na ko lu ci juróom fukk ak ñett waaw juróom fukk ak ñett te juróom-ñeent fukk ak na eh. wax nañ sax am na bis sëñ Basiru seet si ko waaye booba mag la mun ko xanaa sas bi la sëñ bi sasoon de xanaa mett na léegi de mun ko ba ba guddig biig laa ko mujjee def mun ko biig sax bi may tari dama tambay suratu bakara setantal gi may setantal alquran ji motax bi mag ci suratu kahfi ma ma wara ruko ndax be eh, kamil xaju kaw bi jeexna mm. waye setantal mo yobbu ba aksina na mulki muy tabaraka ma dara fatali ko ruko guma la ilaha illallah xam ci la mujju ruko juga tambale ba yeg yeg yeg la deng seigne touba rek tek ci ne ko yow it fo tek sa tank mm-hmm. seigne dam lay wax de mm-hmm. ku fa tek ku fa joggi tankam du lak moo tax suñu daam mag ñi neen soo musaa ñëw këram daawul solo dàll ndax yërmande gi waaw te it boo ànd ak moom mooy jiitu nga topp ci ginnaaw mm-hmm. kon xam na dégg naa nag gars yi ko naan loolu mooy bu la nee bu bu ne foo teg sab tànk ku fa teg tànkam nangam mooy comme fu mu jaaroon ko fa jaar yooyu dañuy taayu rek mm-hmm. Sëñ Tuubaa fi mu yem waxam nan fa yem li si am solo kañ mooy jëndal nañu aljana ñun ñëpp waaw loolu kay loolu moo gën a kii loolu kay jëlul si nekk waaw mm-hmm. léegi nag sëñ daam ni wiis mu ni seera <laughs> waaw loo bëgg seera nekk bis bu nekk naa lay gën a sopp <laughs> moom xam na ni du fi nekk lii laa bëgg ak laa laa bëgg ak nangam nangam mm-hmm. moom bëgg sëñ Tuubaa xam na ni mooy lépp mooy lépp kan mm-hmm. nag la ma la waxoon tey ba muy jox boppam sëñ Tuubaa na mu bëggee woon sëñ Tuubaa ba ni mu ba ni ko sëñ Tuubaa di di ko ñaanal muy dellu mm-hmm. la ba léegi moo ne ci xolam kon dafa melni ak njaal bi nag moy ak mujjam mm-hmm. Mm-hmm. léegi nak ku la raw seigne touba ci bëgg ko ah, xam nga ni lolu dama lay wax benn mbir ci bëgg seigne touba mm-hmm. genn ci lifa dama netal ni dafa mos dem seigne saliw ni ko mbàkkee man day da am lu may sakku seigne saliw ni ko lu mu mun ko nga ñaan mu bëgg seigne touba ta sax ci ndigalam mais seigne saliw ni ko ni ko baxna ñeñu dem bay jamono yag mu ñewat ci mom waxat ko lolu sëñ sall ni ko baax na mais ñu daan bay jamono yag mu ñewat nak bu mu ñëwee wax ko nak sëñ sall ni ko mbacke ma day ma ngi ñëw di sakku ma non sakku sëñ sall ni ko lolu lu mooti mu ni ko ah sakku rek nga ñaan ma bëgg sëñ Touba ta sax ci ndigalam mhm. sëñ sall ni ko lu jëk le duma ci wax dara ndax lolu ab garab la muy bëgg gi ab garab la borom moko jox kosoob waaye lu mujj li nag muy sax ci ndigal na nga fexe ba xam ne sëñ tubaa bëgg nga ne te takko ku takko ku takkoo gi ndigal ndigalam mm. waaye lu jëkk li moom duma ci ñaan duma ci wax daal ndax loolu garaat la sëñ tubaa moo koy jox ko soob muy bëgg sëñ tubaa ba ku la gis xam ne bëgg nga sëñ tubaa loolu moom du ku kenn mën a kereel boppam mm. gis nga moo tax gis nga mm-hmm. ku la ku la raw sëñ tubaa rek raw na la foofa eh. moom mu ni sëñ bi maanaam bis bu ne naa lay gën a sopp mm-hmm. sëñ Xaadim kooku foofu daf ñuy dugal si melakaanu Cheikh Ibra ndaxte soo xoolee si ay kàddoom ay waxinam day doon wax yoo xamante ni eh, sama classe gi si eh, dégg-dégg bu suufee te day day naqari dégg lool lool ba soo xoolee ñett ñi nga xamante ni liñ ñaar ak moom li mu wax maanaam day xaw a kii daal maanaam eh, Cheikh Ibra nu mu meloon si jëmm waaye nu mu meloon si waxi seere dafa njooloon ba noppi ñuul am aw sàkkale yàlla mm-hmm. nanga dégg li ma wax de mm-hmm. dafa njooloon ñuul ba noppi am sàkkale yàlla ca kaw muy ñetti màndarga lépp lim naan sol lu ñuul la gis nga mooy dama la waxoon sëñ Tuubaa la teg fu foo xam ni kenn xandu fa sëñ Tuubaa lim tàmmoon sol lu weex seere ni du ma yem moom fu sëñ Tuubaa weexe rek fu ma ànd sëñ Tuubaa ñu xàmmee ko ba si photo bi siiw bi sax waaw lu ñuul lépp lim naan sol bi mu nekkee ci daara ji danañ wax naan ndongo buy tërbiya bu solee lu weex tilim da koy gaaw a jàpp mhm. waaye bu fekkee te dangaa sol lu ñuul mën ngaa liggéey mu tilim lu yàgg te lu ñuul daa gën a nangoo da gën a nangu tilim mhm. mu far nag looloo la tàmm di wéy di sol lu ñuul lépp lu naan sol lu ñuul la daan doon te loolu sax defe naa ko xool suñu mhm. mbokki Baye Fall yi da nga gis ñoom yaa ngi nii Baye Fall nga gis nga tol gi faaw mu ñuul faaw ñuul bokk ci waaw <laughs> kon lépp lu mu naan sol waaye ku amoon kerse la ceera ko mun kersa la ku mënoon masla la kim gënoo dëppool xalaat ci magni moy mooy sëñ bàkk buso sëñ bàkk buso sëñ bàkk buso min nan seera da sofaan ak mom mom mhm. la gënoo déggoo xalaat wax nañ ni bu sëñ bi musaana wote di wax mhm. ak ñoom fi ñaari xalaat ñu daan gën a déggoo sëñ bàkk buso mag ma laa wax ak seera fa ñu daan gën a déggoo xalaat kiñ doon wax nan dafa sunni yow waaw xam nga mbir boo ta xamoko mhm. da ngay noppi waye xam ngeen ni sëñ nim amu won fulla yàlla jëm gisoon képp mm-hmm. du neexal kenn ku ne ci moom ndef loo wër def fa saasa mm-hmm. dina dakk kon ku nekkoon sëñ tubaal la ma nekkoon nag nangul nan ko nangul mm-hmm. te xam ne loola lu neex sëñ tubaa la sëñ xaarim xam naa ne si loolu lay ñëw sax ndaxte dama bëgg a ñëw si eh, ay xarbaax yi eh, Cheikh Ibra waaye sëñ xaarim dafa am foo xamante ni yaakaar naa ne mbokk yu bëri ñu ngi koy xaar te faw ñu laaj la si bu baax a baax mooy liñ naan Cheikh Ibra daanul julli daanul woor lu jëm si wàllu ko sunna wala charia maanaam euh, li mu si daan bu fekkee da ka daan jëf lim si daan jëf liñ naan bariwul loolu bu fekkente ne am la kenn la ko tàmbali laataa muy ñëw si Serigne Touba ba xam da doxee noonu ak bu mu ñëw Serigne Touba ba jamono jëm seexee. foofu bëgg nañ fa leer xam nga Bada. Mhm. sànq ne ko mën fulla la. Mhm. Seex Faal ba muy ñëw Serigne Touba xanaa déggul li li li mu wax ni ko lépp lu ma la liggéeyal. Mhm. sama kër gu yow ma xam rek a tax. waye du sama daray aduna lolou la ko wax ñepp dégg ko. waaw kon ku mel non dana fa nek lu tol ni pepp karaw gàddu la su àdduna mm-hmm. looy ni kawar gàddu lu ma ko fii ci aduna sakanduma laa mbaar mm-hmm. kon da kay wan lim kay wo li tax mu ñew ci mom mu ngi ci mom mm-hmm. yalla rek la lay wan. waaw ku mel non nak fi bada dina nek ak yow di def dara mu wóoral ni yow ki limi def du tax mo am lim bëgg nga bàyyi ka ca lol lol xel mu a japp lo te ñepp xam nañ Cheikh ibrahim na ngër waaw ah waxuma sax te am na ngërëm waaye moom yow sax yow sax yow mi ngi am na ngërëm waxtuma <laughs> laak yow moom dama leen ni xoolal moo tax man la fii ne yenn saa yi ma dem benn conférence ñu laaj ma Cheikh Ibra Fall lu tax daaw man leen loolu du question mhm. du laaj ndax ba mu koy def ginnaaw sëñ bi la wala sëñ booba sëñ baa ngi ñun ma sëñ baa ngi man kon ko amul laaj mhm. bi mu koy def sëñ baa ngi lu luñ ci laajat mhm. loolu kay bu doon bu doon loo xam ne sëñ bi moo ko xam nga sëñ Tuubaa ni mu amee woon ful la te yàlla rek la gisoon nit dina nekk moom di def dara te noonu mu bàyyi ko ah waaye xalaat nit ñi xalaatuñu ñu xalaatuñu. loolu du mën a nekk dama leen ni xool séeréer ci boppam. Eh, bëgg gi mu bëggoon dafa yóbbaale woon yéppam. bëgg gi bëgg sëñ Tuubaa dafa yóbbaale léppam. loola da ciy feeñ ci su mu saan toog moom bu sëñ Tuubaa wax du ko dégg. Mm-hmm. bëgg tax du fa ne. te bu nekkee kër seex kër seex sëñ tubaa nekk kër gu mag lu sëñ tubaa seera faal dégg ko waaw akbar quartier si ñu nekk gi njaarim xam nañ ko muy benn xamante ne dànd na loolu kër gu kër gu mag soo musaa jógee kër gu mag jëm si jëm si kër seex sëñ sa ah nga may xeeñ de su ko musaa ne wax da ngay toog tuuti rek ndaw jógee kër gu mag ñëw ñu sëñ bi nee na mu ne ah néew naa nga def suñu baam may xeeñ saa yu ne jàkk xam xam ne gis nga sëñ tubaa mas naa wéradi yebal sëñ Mortalla Fall mu dem mm-hmm. yebal ko sëñ bi woo ko yow mu yónni ko sëñ bi ngir mu defal ko ñaan mm-hmm. sëñ Tuubaa jox ko saafara ba mu agsee seer ni ko lu mu wax mu ni ko ah, moom day saafara mu ne ah yéen ay gone ngeen li may faj def ko ci xool ma sa yi la nga def ma xool la tax ma wér gis nga kooku doon doon buntu sëñ Tuubaa gis nga muus ni muy doon buntu nget mm-hmm. noonu laa doon buntoon sëñ Tuubaa léegi nag li nga wax eh, ci ni mu meloon ci ét yooyu nga xam ne ñàkk ñàkk def léeg ñàkk def mm-hmm. nangam mm-hmm. waaye dama la laaj eh, sëñ Ibra eh, yow kii eh, sëñ Bada mm-hmm. gis nga dañuy wax ni musunoo gis li may bëgg wax ni sëñ sëñ Bara Dieng moo ko nettali monsieur te ku ne xam moom la joxoon doomam soxna Soda Fall moom sëñ Naar Dieng dégg nga sëñ Bara nee dañoo mos a toog Seera Fall muy waxtaan ba mu yàgg rek nee na ay gan ñëw fa mais bi gan yi ñëwee nuyoo toog seera toog ba mu yàgg rek daal ni bërit bay waaye jóg yeggaat suuf waaye nee na booba ñoom xamuñu lu xew ba mu yàgg ñu gis ko muy ñaq ba ñaq wi tàmbali di sit yére di kii nga xam ne ñaq na ñaqin woo xam ne wu taratar la waaye lépp mu ngi toog nee na gan fa nag nee ba gan ya dem seera daal di jóg dugg ci biir waajaat soit yenn yére ñëwaat mais ñoom ñuy toog ne mu leen ndax xam ngeen euh, sama ñaq lu ko waral ñu ko dee mu ni bi ma bi gan yi ñëwee fekk si ma dafa am jënd jiit du jaar sama xuru gannaaw fett ma bi may jógee bay waaj jóg ngir jéem sumi mbub mi dindi ko ne ci laa fàttaliku ni man kat ay gan laa toogal te yonent bi moo ne man kaana yuminu billaahi wal yawmil aaxir fal bay dayfahu mhm. képp gëm yàlla gëm bis penc na ganam te bu ma jógee bàyyi leen damaa wuti xadis ba mhm. waa kan moo mën sa topp xadis ba loru nan ma ko wax <laughs> daaw wute. Mhm. nit ñi nag li ñu xam mooy. man daal eh, sëñ Ibra eh, kii eh, sëñ Bara. Mhm. li ma bëgg ñu tegtaloo ko. Mhm. mooy kenn ku sañoon sa kër di nga fa ma bàyyi faal. damaa yaakaar nag loolu moom ñu loolu ñëpp daje na ci. xanaa ñëpp mën mun noo daje bëgg bëgg lu baaxul. loolu mun tane muy benn. ñaareel bi ku sañoon. li sëñ tubaa defal seere faal mu defal la ko kooku moom lu ñuy wax muy ñaar ñetteel bi mooy kuy werante mbirum seera ak tolluwaayam sëñ tubaa wala ak eh, ab wala nangam ñun murit li nga xam ne mooy suñu liggéey bi gën a rëy ci àdduna mooy jumaay tubaa yaa ngi dégg waaw la ca gën a gudd gën ci am àndargaw lu mu doon soror boobu ku ko tudde ku ko tudde di mo non doon touba kon kay awtu fi lo lo kay lo loolu mom du loy jang ci téré wala nga nek di sikki sakana naa na leg léegi na la hmm. lo mom lu nepp gis la mu leer nañ fi ni nii euh, jumaa ji ba jeex tak wenn tur lañ mom mo fu amoo tur hmm. legi nak lola bamuy noppi ban ka kay tuddee ndax mu ngi ci ngel déet kon jëfama tax hmm. <laughs> ak téeram sëñ tubaa tax xam nga fekkoon tan mu ngi fi da nga naan xañ na jëf yi seen jëf moo tax ñu ne nangam waaye lii ginnaawam la suñu xaram da nga mën nañ see boole euh, ba sunu jamono ji foo tuddee sëriñ tubaa maam lu si ëpp faaw nga tudd maam Cheikh waaw xam nga xam nga xam nga xam nga euh, cofeel ci nit ak tolluwaay moo mel noonu xam nga ab taalib ab sëriñ bu sañoon fu mu gestoo gis ab taalibam léegi da ngay gis euh, ab sëriñ bàndeeku taalibe muy bëpp néeg bi suñ demee fenn gané ji fa borom kër gi kay gané lu muy wax du def dara señ bi dana señ bi mom ndax bu gëna nangam señ bi ndax nangam bu señ bi gesso gis ko kooku même su ko bëggé gis sax mën naa kaa gis wa légui nak loolu moy babul muridina mm-hmm. mm-hmm. loolu ma wax ni moy babul muridina am néeg koy dàkkanteel moom lañ naan maam Cheikh am néeg ndax foofu laa bëggoon ñëw sax am néeg foo gis néeg ba gis fa bunt ba mm-hmm. mooy baabul muridina ma tay mom du sax liñ man ar bi sax jël man yow man sax da da gambat ci ndax seigne khadim ndax mën nañu fatalikou lenn ci ay cheikh ibra yo xamanteni def na ko bari na waye nañ ci tuti mhm. amna bis mu tok talibé yi mom mhm. li may wax nak baye ibrahima moko neena mhm. am ben Baye Ibrahima ci am doon ku taxawoon ak Cheikh waaw Cheikh Fall mm-hmm. ñi xam njaarim xam nañ ko mm-hmm. nee na euh, ñu toog ba mu yàgg fi mu toog mu seen taalibe yi di liggéey taalibe yi liggéey mu leen di xam mu ni xalaas ne noonu laan waxee mm-hmm. wala cam waaw xalaas yegg ngeen ci yàlla waaye leeru leen hmm? ñuy teg mais mu ne ah yegg ngeen ci yàlla waaye leeru leen yéen li ngeen liggéey sax liggéeyuma ko bàyyi dama jaay wax de ne seeraay fa seeraay wax li ngeen liggéey sax liggéeyuma ko ne ñu ne dënn mu ni ah man ñett ñaari at ak lu topp rek ñetti at bi sax manqué na laa liggéeyee sëñ ba sama cër yëpp bañ bi mu waxee loolu am na benn géwél bu fa nekk nee ni ko faal man day am na bis ma ànd ak sama waajuru góor ñu war aw fas jóge dëkk sàngam jëm dëkk sàngam ñu seen la ci àll bi ngay curki curki mooy ku nu takk ay tànkam muy dox mhm. xam nga day tëb dal tëbaat dal mhm. ñun nga mun nga mag ñu gis la ngay curki mhm. ne ma ne sama baay waaw kii ku mu doon ne sama baay ni ma kii de doxub yàlla la mu ne ah doom wax nga dëgg waaye booba sax dem naa ba mënatuma ko damaa mujjoon deraam waaye yéen yëg ngeen ci yàlla waaye leerul xam nga jooju wax jan wax la gis nga nii sëñ Tuubaa meloon nga xam ne naax naa du dox di gestoog fu mu jëm fa la jëm ah. murid yépp noonu la meloon fu leen lépp jikkoy saxaaraan yoroon am murid lépp lu ko musa lu ko musa yital ba mu jëm ca dara mënu koo dox waaye léegi nag dañuy boole sëñ bég leneen hmm. ni bis boobu nag ci bis boobu nee na la am benn taalibu ne isma ka ñëw xam naa ni kawar gi feqee ak topp ko mu ñëw nuyu seera fall bàyyi ibrahima nee na maa ngi toog ni bim ko nuyo séré ni ko khalas xadu xadu ngeen japp daf leen watu ji xana du ngeen japp fekk daa am lu mu bëgg a mhm. ndax da ke man day am fu muy jaar mhm. jubluwu ci sax loola rek waye daa am lu mu bëgg a nettali mu ne xalaas dam leen japp dam leen watu ji xana du ngeen japp deng dal ni man day bima nek ci liggey bi Cheikh Ahmad Tidiane feñu na ma mu mag ma feñu mhm. na ma ni ma dama bëgg ko kóllërenteeg yow ba noppi jël sama kawar rafaatal la ko seere ni ka man de waaw waaw mun ka dama nek ci liggéey seere ni ka dama nek ci liggéey kawar so mhm. kamé dang kay topoto ta waxtu yu ma nek waxtu liggéey ma topoto kawar waye nak señ bamba lama yalla yàlla booleel na mu ni mu ni sama tux mi dina leen ko leeral mhm. li tax may tux mu nan tux mhm. mais Cheikh Abdou Khadir Jilaani moo ma feeñu mhm. ni ma boo bëggee yàgg ci àdduna mhm. dee ko jëfandikoo ah. kon day wan ne leer gaa tax hmm? waaw ndax yen bu diisee ba mu ëpp borom day galfan hmm? waaw <laughs> dégg bàyyi rama wax de nee na loolu kenn nit maatoo mu ni ñun kat ah ñun kat dañoo déggoon ni jamono yi seere faal nekkee ndar ndax bi gi sëñ Tuubaa dafa dem ndar hmm. doom yu mag yëpp fa leen gënee jamono danaan togg ay ay danaan defar ay musal di ko defar ci xaddi di ko yónni Sëñ tuba, fa li nga xam ne mooy Gabon ñu ni ka yooye day danoo wax ni sebra da ko daan xar yooyu da ko daan rendloo Sëñ Modou Ndiaye ma béy ba Ibrahima ni ah, man day man na laam yónni musuma yónni Sëñ Modou mun ñu kan mu ni mm-hmm. ci la ma daan yónni ngi ndar moo ko doon lewatal waaw moo ko daan lewatal booba alaaj Malik mu nga looda seera mu ngi gendar mhm. baabaraam ne man lay woo ma ñëw ma dama wol ma alaaj Malik ndax ñoom ñaar ay classe la te ay xarit lañu woon mhm. ñee mu dem wooyu ko mu jo mu jógee looda gendar ne su ñëwee lottaloo ko gàtt yooyee ne ta yen ne yenn saa ma ànd ak moom it dem ci moom hmm? baabaraam ne tamit nettali ndax dégg nga li ma la ko baax xam nga li ki fekke di wax mhm. bukku ku dégg di wax fekke ba pare bokkon ci ñu doon jëf mhm. waaw amna yeen yu yu nett sax yo xamni du waxi radio mhm. ci seen digënté ñom ñaar yu bare bari mhm. wa dama lay jubloo wax rek ni la mom lima wax lima wax andi li moy dama wax ni la kooku mënoon a masla la di kan ci ay manam nak dina ci wax euh, nee benn bis yi am gannaam yépp xamoon nako ko ibrahim may wax de ni dama toog ba mu mu ni xalaas cham ñi nga xam dañ ma dañ ma dégg dañ ma sop dañ ma dégg rek sop ma te yaruma len kuma yar yarul len duma xam dara hmm? barama wax nee na rafala muni khalas ni hmm. ya, ñi nga xam dañ ma deg rek sopp yi nga de te yaruma len kuma yar yarul len duma xam dara mo tay danaka ñi nga dañu ah. dugg si Baye gi te ah. ñu ni muy ah. di def li len neex. euh mbir bu la réré da ngay dem ci cosaan la. Hmm. jógal fi dem Mbàkke bol. mbaa nga dem ci njabootu feera faal gi fu fu mën a nekk nga xool nga xool eh, mboolem xali eh, xalifa yi yi fi mos a jaar seeni kër nga dem tey boo jógoon fi dem kër sëñ Cheikh Jëmb yàlla na fi yàgg nga xool ñooñu nan mel nga dem kër si waa kër sëñ Moodu Amit nan Moo Talla sëñ nangam ñëpp koo ci xool ak njabootam nanu mel mbir bu la réeree jëru ngay gëstu di wër da ngay dem da ngay dem da ngay dem fa mat a dem soo fa demee di nga xam ne mel waaye dama lay xamal ni la Seex Faal daal man hmm. jëmm la joo xam ne sëñ Bada man man mii di wax ak yow hmm. ci laay natt taalib ak nit ki man hmm. noo mën a mel ci yoon wi soo soo amee lan looy xabat Seex Faal rek man gàttañu naa sa mbir sëñ Xaadim li xam mooy ba mu sëñ kaa gis maanaam mu taxaw julli waaw xam nga eh, Seex Ibra da koo xam ni aw doxinam dafa neexut a takk ndax sëñ mu mu ngi nett leen danaa nekk ci daara ji moom yàgg mu jékki-jékki rek bett leen ah da ngeen di font rek nekku leen ci dara da ngeen di font rek mais yenn saa yi mu tuur daay jaxase fii waaye nee na ñoom bu ñu ko yëg tee teelee yëg dañuy gaaw tëj yëf yi su ko dee day wëndeelu bàgg ci daal ah nekku leen ci dara da ngeen di font rek waaye nee na booba ñun danañ xam ni tolluwaay la mais uh-huh. su demee ba dellu nag nee na bu dalee dafa amoon àll waaw nee na bu dalee day ñëwaat dina indi kafe te mu lami la nettale andi suukar andi nangam andi nangam andi nangam ñëw jox leen ay biscuit ak yëpp ah yéen rek yéen nekk ci dara yéen rek yéen nekk nga xam ne ñoom dana xam tolluwaayam ku mel noonu nag néew ta takk waaye si Baay Ibrahima dañ koo laaj ni ko ndax seero daana woor mm-hmm. mu ni musumaa xam ak kooram ndax musumaa gis mu lekk bëccëg hmm? te nee na bi mu feree lañ ko jox ba ni mu faatoo ba ni seere Faal làqoo mu sa teq lu ko moom waaye nee na maa ngi seera Faal lekk bëccëg ku mën na def li may wax ni ku mën na def <laughs> kon kooku moo tax mën na mbiram neexut a dàkk waaye daal fi man daal fi nga xam ne daal foofu la ñuy jeex ndax waxtu waxtu jot na mm-hmm. mooy mm-hmm. nanu xam ne daal mm-hmm. euh, loolu dafa seey ci làmmañ yi Sëñ Tuubaa nee na ñaar yii képp ku ci nekk te delluwoo ci ginnaaw tuub ko kenn mënu laa ràmm oh. ñeel ban ban benn bi mooy sàllalu soxna jaara hmm? muy benn ñaareel bi weddi Seex Ibra Faal sëñ Tuubaa nee ah, lii ku ci nekk bët faatu te tuuboo kenn mun laa kenn mun laa ram Seex Ibra Faal lay dëgg léegi nag eh, ma jeexal ci benn kii bu gàtt rek mm-hmm. ñi nga xam ne am wér du ñuy def guddi wala ñu leen di wan mm-hmm. néewaana ku ni wan àjjana te gisoo Seex Ibra Faal mu taxaw ci bunt bi te li ma la wax nanga nga wër gaa yi gaa yi laa wax de waxuma ñu mel ni man gaa ña laa wax <laughs> wër leen kenn par kenn c'est kon nag dama lay xamal ni la. mooy ñi nga naan dañoo am tomb. koo am tomb ku ne. Mm-hmm. doo gis mu dingat. Mm-hmm. koo xam tomb ci yàlla doo gis mu dingeen Seera xanaa mooy waaja rek ngay wax. Seera Fall waaw loolu nag laa wax ne la kon. Mm-hmm. fii nii nii nii mu mel bu yow mu neex nu rek. nii mu mel nii ci yoon wi bu yow mu neex ñëpp yàlla def na ko ba noppi. yonent bi def na ko. Sëñ Tuubaa def na ko. képp ku gore ku mën a doon. laa lay xamal ni la. nga jébbalu ci waa kër Seera Faal nga bañ a jébbalu ci waa kër Seera Faal ñoo ci bokk yam xayma bi mu am ak ni mu mel ci yoon wi nan ko nangul sëñ Fallou ngi ni mu ñëpp nangul nan ko ko Seera ni mu mel ku mu neex ku mu naqari yàlla def na ko fii nii nii du caay nag ñiy wax ci moom ak ñi ko bëgg ni doona tax sax ñu jébbalu nekk ne jébbalu ci Baay Faal déedéet waaye moom ni mu mel jébbalu feneen ak ñoo ci bokk yam ni mu mel yàlla ci boppam moo ko def yonent bi def ko sëñ tubaa def ko kon ni ni neex neex na yàlla mu mel nii soom na sëñ tubaa neex na sëñ tubaa mu mel nii kon ñun ñëpp dañ ko war a nangu waaye boo fi nekkee am leen looy xabat ci moom yow yaa jóyoog sëñ tubaa ndax sëñ tubaa jóyowul ak moom rafal nekk ak sëñ am ngërëmul sëñ tubaa am ngërëmul sëñ tubaa su daan jubli si bëri ni ko dem dama leen ni kooku li mu takkoona ak sëñ tubaa uh, boo bala nga ko woon xam nga jaxasoo nag lenn ci doomi sëñ tubaa yi waxtaan ak ñoom ba tudd Seere Faal ci ngay xam ñoom kan mooy Seere Faal kon Seere Faal mu ngoog mu ngoog sëñ Xaadim xam naa fi ñu daanale mooy ñi nga xamante ne xëy na kon niñ ko waxee sànq rek sopp nañ loolu maam Cheikh Ibrahima Fall bëgg ay mbiram kon euh, euh, day baax it daal di dem si ñi nga xamante ne ñooy waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ngir lan mooy melokaani Baye Fall gi nga xëy ni moom la ñuy wax waaw man xamal li may si jun rek mooy ñi nga xam ne dañoo jóg di dëgg Seere Faal ji bëgg mm-hmm. xam mbiram mm-hmm. buñ ko faraatu ci mbedd yi mbir da ngay dem ci cosaan la. Mm-hmm. Ah, maanaam waa kër Seere Faal a ngi nii. ñëpp gis le ñu nekk ñu baax jëf-jëf ju rafet. jëf joo xam ne na Seere Faal meloon moom la doy ba mel nii. Mm-hmm. boo bëggee xam ngay dem ca ñoom. Mm-hmm. soo yaa ngi ni Baay Faal nga. yaa yaa ngi ni Baay Faal nga. képp ah gis nga gis nga ni nga tubarikàlla. Cheikh Ibrahima waaw Baay Faal ngi nii waaw benn Baay Faal ngi fii nii nii dama lay ne boo bëggee xam gars yi da dem fa jëf ya nga dem fa waaye doo dem mbir boo ko bëggee da ngay dem fa mu am nga ne fa kon Baay Faal dafay jàng dafay ma maanaam lépp Baye Fall daal. moo ah, waaye daal xam naa ne daal am na genn kilifa gu mag daal. gu mhm. Moussa wax damay bañ a tudd tur bi waaye ci yoon wi la de. Mhm. ne woon na su ma faatu woon ñu may ñu teg ma ci koosu bàmmeel. Mhm. ñu may wàcceel ay camion ci penc ma. Baye Fall ba gën a sagare ci waa Kër Seera Fall ñëw wéq ma ma dugg ci bàmmeel ba moo ma gënal. sëñ Xaadim looy tàggoo. waaw kon nag Seera Fall nan tey ci mbiram. te xam ni. ni mu mel mel leen ba noppi ku mu neex ku mu naqari mel leen ba noppi mhm. mbir nag doo ko gëstu boo koy gëstu da gëstu fa mos a gëstu kon eh, eh, di yu baax xam naa ngir jeexal ndax waxtu bi sax jot na bàyyi fa rek nekk ci dara eh, waaw mu ngoog <laughs> la ilaha illallah